yëkkati sa loxo bokki jullit yi bokki taalibe waa Sénégal maa ngi leen di nuyu te di leen wax sant bu rëy bu ma am jëme ko ci Serigne Saliou waaye balaa booba dinaa yëkkati kaddu di nuyu tey siyaar Serigne Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi te yëkkati nuyoo bu tedd di ko nuyu waa kër Serigne Saliou Mbacké yëpp ci njiitul Serigne Cheikh jiital bi ci kanam loolu day wax yàlla sant naa ko ci lool li ci tegee mooy maa sant sama rak lii ma wër jëmee ko sant taalu bi biir réew mi ak waa bitim réew ndax boobaa ak léegi daanaka ñaari weer ak genn wàll ñetti weer ci lañu tàmm jëm ci mag waaye seen posté seen fonk sëriñ seen bëgg sëriñ bi moo leen yóbbee ci ñu jëf jëf ju toll nii ci sama xol a njaboot ñooñu nag maa ngi maa ngi maa ngi yëkkati kàddu kàddu yi sax mel na ni dama ci dama leen bëgg a joyal lépp day mel ni sax aw ma kàddu gi waaw wax bi ko man waaye maa ngi yëgal maa ngi leen di yëgal ni leen maa ngi leen di sax sant naa leen lool maa ngi sant it suñu mbokki bopp yi suñu mbokki tere bi fépp fu ab cantaakon ne na nga yëg ni maa lool li fi xew tey nag moom sëñ bi sëñ ko liggéey moo ko moom bu yëfi kenn nun day dama ko faral di waxee rek ay dongoom lañu ay jumtukaayam lañu liggéeyam bi hmm. danoo bëgg rek mu dëgër danoo bëgg mu sax hmm. ci lanu ne ci leneen moom nag soppi na jataay waaye mu ngi suñu biir noonee ko bi daal di waxee mel na ni ah, li fi xew tey wane na ni moom dugul ci suñu biir ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di sant di sant journaliste yi nga xam ne presse bi en général. ñu ngi fi ñëpp ñëw nañu. TFM. Sen TV Touba TV. 2STV les force de sécurité gendarmerie police sapeur pompier maa ngi sant ñëpp màggal bi ñëpp dugal nañ ci seen loxo maa ngi woo nag senegal gépp bàyyiwuma kenn leen ñaan ñu ñëw màggal si Jannatul Mahwa sëriñ bi dimbali nañu ba matale na jëf ji lépp a fi na ñëpp ñëw ñu màggal ko te sant sëriñ Sall yàlla na yërmande sëriñ bi da ko gën a sotti ci suñu bopp jaa ngeen jëf